Comment ça va La rubrique. Eh ben, faut que ça aille, hein Wesh <laughs> <laughs> on va parler de bilharziose. Ouais, on va parler de bilharziose, donc, euh, qui est une maladie, euh, une infection due à des vers parasites. <coughs> les vers parasites, donc, retrouvé tu au uh-huh. Donc, la plupart du temps, donc, euh, fille en Afrique, les am donc di ko gis tamit ci euh, Afrique subsaharienne bi ci Moyen-Orient yi Asie etc Afrique du sud et euh, sud-est bi donc euh, muy madame ndoxu géej yi nga xamante ne dañuy contaminé ah. par des des parasites ñun moo tax parce que nit ñi dañ fay dem di fa saw di fa voilà di fa tuut muy nekk ay ay géej yoo xamante ne par exemple fa la ñuy fa la ndox yi di. fële salte yi voilà ak eaux usées yi di di di fekk yi xam nga naka lañ koy dafa mel ne ñu ngi nekk ci période taw yi voilà ci période nawet lañ nekk donc la plupart du temps euh, bu tawé ni ndox bi yëpp dafay wàccaat ci kaw. ci égout yi dañ koy ubbi. voilà sinon ci yenn lac yeeg yenn endroit yi nga xamante par exemple amu géej mais ay kii la am

il faut faire attention bu tawee di dougal sa tanki ci bir ndoxu taw yi di jaar ci bir ndoxu taw yi wala di voilà di utiliser eau usée yoy non parce que dañuy susceptible à am des vers à être infecté au fait ay ndox yu infecté lay nek yo xamante ne mën na la indil façon feebar bu nek mhm. voilà donc bilariose nak ñep xam nañ ne euh, dañ koy set plus ci xale yi surtout dans les pays yi nga xamante euh, ay pays démunis nañ habituellement da ngay gis fofu nonu ay cas de bilariose yu extrême yo xamante ne euh, day épidémie moo fay am sax après pour traiter ça c'est très compliqué il y a des boutons des la ay genre infection de la peau yo xam intraitables intraitable parce que ça yi ay vers la au fait yo xam day dugg sa bir yaram bi di creuser. parce que xam nga dëkk bo xam amulo assainissement. voilà eau potable euh, c'est eau potable c'est pas accessible à tout le monde. c'est clair que l'épidémie bi day day la population. voilà voilà donc Verbe, euh, euh, verre bi y pénétrer ci ce ci ci yaram. dem nekk ci sa peau euh, dem ba di mën mën dugg sa biir yaram bi dem ci sa deret bi xam nga di traversé mën na dem ci sa fois bi dem ci intestin yi ak yeneen organe yaram mi foofu lay dugg bu fa duggee nag dafay caqat caqate comme ni ñu koy waxee dafay lekk quoi donc buy lekk mooy day gas donc plus muy gas plus mu gëna yok fièvre yokk feebar maanaam muy gën a infection bi nek ci sa bir yaram bi donc lolu c'est c'est un traitement bo xamantene ne euh, habituellement sax c'est des maladies yo xamné ne euh, kii la euh, naka lañ koy waxee cas d'urgence dañ koy wowe ci ben dëkk par exemple bu xasee ba am dañ koy def cas d'urgence donc médecins yi dañuy ut ay vaccin di di def ay recherches pour mëna xol nan lañuy éradiquer complètement ki bu fièvre bobu noonu jéem désinfecter euh, ndox yooyu noonu nga xamante ne dañu dañu dañu infecté wu euh, maanaam nit ñi dañu leen di mettre sur isolation y a tout ça nga xamante ne ce sont des ay ay ay ay euh, prévention la yoo xamante ne ministère de la santé noonu moom lay def pour mun a permettre mu bañ a propulser. et puis surtout euh, l'OMS organisation mondiale de la santé. nous alloue alloué énormément d'argent. pour venir voilà, en aide aux pays en, en Pays, voilà qui ont ce genre de problème là. parce que tout simplement c'est euh, c'est c'est des maladies qui ont été bu xasee ba jàpp la nii li muy yàq dafa bëri day bàyyi sax ay séquelles ci yaram da gis après ce sont des plaies yoo xamante quand elles se cicatrisent elles ne se cicatrisent pas complètement elles laissent des taches elles laissent des traces sa sa yaram ba la li ci gën a soof mooy du yem juste une éruption cutanée boobu noonu muy def <clears throat> danay def naa ay xesen di la defal voilà démangeaison ngay ngay am fièvre comme ku amee grippe comprendre nga ngay sëqët di def ay di di di sedd comme comme comme gis nga pas le muy réagir ci nit xam nga pali bu moustique matin ni tu as tendance tout le temps à avoir froid da nga yaakaar da nga liw di am fièvre ba pare di liw <coughs> ngay sëkkët di am ay maux de tête yu intense ay sa biir di métti sa articulation yi dañuy métti vraiment muy feebar boo xam te ne maar de musiba surtout bu dalee hein? xale surtout bu dee xale la dal dafay gën a métti parce que xale yi xam nga déjà seen système hmm. immunitaire dafa fragile par rapport ak système immunitaire yu mag yi donc ñooñu euh, da nga ci gis ay cas de décès yu bëri ah d'habitude bu amee ci benn dëkk par exemple épidémie boobu bu amee ci benn dëkk da ngay gis ay cas de décès yu bëri ci xale yi parce que tout simplement seen organisme du ak du supporter euh, infection boobu noonu ah donc bah. muy infection boo xam ne c'est dû à des vers te li koy indi yëpp insalubrité la rek insalubrité parce que nit ñi dañuy dañuy saw n'importe où di poup n'importe où uh-huh. xam nga bu taw bi ñëwee wala ndox jaar foofu noonu buubaale lépp yóbbu ko nit ñi naan ko fóote ko voilà nit ñi naan ndox boobu fóote ko parce que voilà y a des pays reculés yoo xam te ils pas les moyens de pouvoir filtrer l'eau ou bien de uh-huh. boire une eau potable uh-huh. ils sont obligés de se de se conformer à li nga xam te ne moom la ñu am alors ces genres de pays là ou ces genres de de de dëkk yooyu noonu wala région wala village yooyu noonu habituellement dañuy am ce genre de cas de maladie là bi nga xam te ne mooy bilariose et puis tu sais il y a une benn chose dafa am benn documentaire bu ma seetaanoona ah. mhm. parce que dafa dañu demoon si benn coin bu recul boo xam ni vraiment y avait des indigènes en fait mhm. amuñu au accès à l'eau potable si lac bi dañ doon fóote def lépp lu ñu war a def en fait mhm. léegi dañ leen jàngaloon benn système boo xam ne da ngay teg charbon argile ak suuf xaw ma lan ak benn système boo xam ne daal dafa leen permettre ñu filtrer ndox bi pour que au moins maladie bi xaw a reculer tuuti quoi bien sûr bien sûr mais c'était c'était c'était magnifique je pense ah ouais donc c'est-à-dire que c'est comme ñu nga wax sànq rek c'est euh, c'est des préventions yoo xam te ne OMS da koy jël euh, donc tout simplement pour nous permettre permettre de nous nous parce qu'ils n'ont pas de solution pour pouvoir euh, être dans les dans les normes d'hygiène nécessaires donc nous avons solutions c'est des solutions rapides ou que voilà alternatives qui permettent de tranquillement sans pour autant euh, être atteint dans ce truc là alors au Sénégal euh, en Afrique de l'Ouest on ne trouve pas trop ce genre de cas là mais ça arrive dans certains villages ou dans certaines régions où vraiment ils ont ce problème d'assainissement là ils ont ce problème de de consommation d'accès à l'eau potable. Oui. à l'eau potable. Oui, oui. Ils ont régulièrement ce genre de conflit-là. Ah. Parce que tout simplement, ils sont obligés, comme les Morsang, de se conformer à ce que nous savons que Euh, nek ci environnement boobu djema xol xool tax def des fois sax da ngay dégg ay ci journaux yeeg yoy ñuy kaas nan amuñu li amuñu la amuñu ndox amuñu li dañuy obligé di dem ci teen yi hmm. xam nga teen sax c'est le moins normal voilà légui teen yi tamit su amul hygiène bi war ci teen yi il y a de fortes chances que ten yooyu noonu maanaam ndox bi tamit infecté wu mhm. c'est-à-dire que infection mun na nekk ci fépp foo xam te ne dafay am ndox mhm. taawu ndox lépp dépendre na ci environnement wu ndox boobu noonu ci ban ci ban état la nekk am na ay ten yoo xam ne ils sont bien traités parce que régulièrement ñi nga xam te ne ils ne consomment que de l'eau de pluie mhm. euh, l'eau de pluie habituellement c'est une eau boo xam te ne c'est traité au préalable absolument parce que dafa am ay ay produits des fois yoo xam te ne moom lañ ciy def pour mun a euh, filtrer ndox maanaam euh, rendre ndox bi potable voilà yenn saa yi filtre filtré boppam voilà parce que c'est de l'eau douce mm-hmm. mais eau douce bu fekkee provenance am baaxul mm-hmm. après euh, derrière fi muy jógee pour ñëw ci ci teen bi bu fekkee ne foofu tamit dafa am dafa infecté wu ba ben forcément day yegg si ci teen bi mm-hmm. donc population bi bu ñu naanee ndox boobu noonu susceptible à ce que ñu am ay problème bilariose ak yooyu noonu donc juste pour dire que c'est des eaux usées yi nga xamante ne des eaux douces yoo xamante ne elles ont été infectées mooy indi bilariose boobu et puis il faut dire aux gens aussi que ndox dafa war clair. <laughs> voilà quoi incolore incolore c'est-à-dire que ndox boo xam dafa am couleur baaxul bu leen si dugg. Ah mais bon quand on parle de la pauvreté quand on parle de la pauvreté quand on parle de certains états mhm. euh, les gens sont tellement dans le qui vive bah ils hein. question de survie en fait question de voilà mhm. déficit il faut que nous donc pour ils utilisent les moyens de bord tu vas avoir des gens Qui ont bu ñu paree dañ koy teg taaj ko pour que euh, saleté bi voilà kii après ils mettent de l'eau de javel ou ils mm-hmm. essaient de filtrer mm-hmm. à leur façon pour pouvoir l'utiliser mm-hmm. alors parfois méthode boobu mun na bañ a mën na bañ a nekk li nga xamante ne mooy euh, dimbali nit ki parce que ndox boobu am na nu muy infecté wuwee loo ci def eau de javel loo ko taaj taaj taaj infection bi du dañ absolument voilà parce que yooyu c'est des cas d'urgence yoo xamante ne médecins yi dañuy traiter ndox bi carrément dañuy def ay ay test def ay affaire pour traiter ndox boobu noonu pour que ndox bi mën a delluwaat nekk au douce bi nga xamante ne moom la war a nekk sans infection sans infection ni rien du tout mais douce juste parce que dañ ci def eau de javel wala dañ ci def lii mooy waral euh, ndox bi dellu nekk eau potable absolument gis nga Maïté am na peut-être ci yenn dëkk yi nga xam ne dafa am ay lac rivière genre yooyu fa la mhm. maladie yi nii di gën a bëree mais Sénégal suñu ndox bi nii Dakar bii sax laay wax parce que man fi laa dëkk demuma ci yeneen dëkk yi mhm. suñu ndox yi peut-être mi ngi ñuy jox maladie yoo xamante ne ñu ngi koy sooxaale te xamuñu lan la mhm. la preuve on est que robinet bu tëjee ba tijji ba nga jël benn oh. pot def ci ndox bi loolu kenn xamul ndox mi ñun li ñuy naan yàlla kese moo ñuy suturaal yalla rek motax de plus en plus les gens dañu privilégier euh, eau minérale wala ñu jënd filtre def ko sen robinet légui légui motax légui ben facture chère tout parce que nit ñi légui affaireu kër rek la ñuy def mhm. kenn nana naanatul ndox bi nga xamantene mom moy mooy ndox robinet te bu njëkk ba da nga naan gis sax boo naanee ndox robinet day mel ni da nga ci def da nga ko filtrer wala dara da dafay neex dañ dan wax sax naan ay quartier bi la seen ndox gën a neex mais léegi kenn naanatul ndox robinet parce peut-être nag maladie bi moom moo ëpp taux de mortalité boo xamante ne daf koy joxe à le paludisme mais am na yenn parce que léegi ñëpp li dale kenn xamu ko da nga gis ñoo xam ne seen loxo yi day néewi seen kenn xamul lan moo lay dal boo defee analyse doo gis dara hmm. loolu lan la ndox moo xamante ne robinet bu tijjee boo sa yére sax doo ko ci ñemee faute bu dee yére bu weex am na benn période boo xam ni soo suñu doon ubbi suñu robinet dafay xeeñ

doo naan ndox bu man keroog laa naan su ma commencé woon di jaay ay bouteilles yi benn 25 ba léegi riche naa te samay moo am na kër yoo xam ne da nga fay dugg magasin la ñuy am yoo xam ne après du ñu xam sax nan lañ koy def est-ce que tu sais une chose xoolal même sans nous en rendre compte Sénégalais yëpp il il boivent de l'eau purifiée seetlul muusu ndox yi lan la c'est vrai que ñun changé ñu suñu habitude te muusu ndox yi am na si yoo xamante ne par contre voilà ils n'ont pas c'est le danger c'est le danger qu'il y a aujourd'hui aussi moi que eau minérale euh, sont pas des eaux oh, minérales il faut qu'on sache que ce n'est pas de l'eau minérale ça n'a pas les normes de l'eau minérale oh, ce sont des eaux purifiées pour na ci ñoo xamante ne respecté nañ norme boobu noonu moo tax d'habitude da ngay gis bu ñu leen waxee par exemple turu au au purifiée bii mhm. dañ la naan bii moo gën ak bii moo gën parce que parfois y en a qui respectent les normes yi nga xamante ne mooy norme pour mun a traiter eau pour def ko au purifiée donc am na ci ñoo xam ne nag voilà c'est c'est un gagne-pain tout simplement gis nañ ne ça marche parce que ci mbedd bi léegi nit ñi dawalkat yeeg voyage kat yeeg yooyu noonu quand tu as envie de boire de l'eau c'est plus accessible bah da ngay ñëw sachet bi 100 francs la nga naan nga mel ni ku naan verre ndox parce que quand tu étais ouvert sachet bi kay cinquante francs la mais des fois man ndox yi je euh, je préfère ne pas l'acheter d'or parce que ndokh bi déjà caoutchouc la té nak bi tàng na bu kii bi euh, plastique bi euh, conservation nak bi tàng na mhm. tàng boo xamante kan mo la né lolu ñuy naan amul ay ferñeent yoo xamante ne yeneen problème lay ñuy indi bien sûr mais bien sûr évidemment combien de fois combien de fois dañu gis ay reportage yoo xam da ngay gis ben pièce bu dégueulasse gaa yi fi teg fa ay muus di ko jal di ko def non bien sûr ma mës a seetaan Facebook fenn foo xamante ne dañ fay defaree ay ndox mhm. seen machine bi fiñ ko def ak seen lii bi wallaahi loolu boo ko man bañoon a naan mais ñooñu dañ leen mujj tëj fu dañ leen mujj tëj foofu xaw ma nan la fa nit mën a dugg mais dégg nga defar ay ndox ñooñu waa service d'hygiène dañ leen mujj tëj maa ngi fàttaliku bu baax li ngay wax nii service d'hygiène daf leen mujj tëj mhm. parce qu'il n'avait il n'était pas dans les normes nécessaires pour pouvoir faire de l'eau purifiée xam nga tey am na benn entreprise bu mag bu nekk si dëkk bi fii boo xamante ne dafa génne woon ay pastilles ah ay pastilles yoo xamante ne daf la koy jaay voilà aquataps aquataps bi ce sont des pastilles yoo xamante ne par exemple tey boo rootee sa waaw mu ngi am ba léegi boo rootee sa sa ndox ci sa robinet ba pare da ngay jël aquataps boobu noonu nga def ko ci bi ndox bi dafay purifier ndox bi dafay purifier ndox bi traité waat ndox bi noonu ak ak ak pastille yooyu noonu donc yooyu yëpp ce sont des normes d'hygiène yoo xam te ne ñu ngi koy jéem a installé mhm. pour que nit ñi mën a euh, am accès voilà am accès ci ndox mhm. bu propre bi eau potable bi et cetera mais lépp loo gis rek ci maanaam traitement d'eau dafa am norme dafa am ñoo xam dañuy respecter normes am ñu respect comme l'a dit parfois c'est dangereux d'acheter de l'eau dehors d'acheter n'importe quelle marque surtout que léegi bi marques yu kenn xamul ngay gis ñoo xam des jékki-jékki rek gis marque bu bees ah, waaw fu mu ne la fii la jógee ak waaw bobu moy ki bi bobu pourtant nak bobu ñi ko créé ce sont les premiers à avoir fait de de de l'eau purifiée au Sénégal ñom ñoko ñom ñoko ñom ko ñoom ñoo créé concept bobu parce que tout simplement ils se disaient que voilà xam tamit esthétique bi la rek ils ont voulu faire euh, un truc esthétique voilà pour faire euh, pour faire euh, vendre leurs produits donc ils ont utilisé des pots en plastique yu ñu créé won tej ko couvercle ko mu melni genre potu yaourt mhm. xam nga genre je pense que c'était juste dans le cadre esthétique moo tax ñu defoon ko mais ñooñu sen sen sen ndox ça a été certifié parce que ils ont été les premiers à faire de l'eau purifiée au Sénégal Ils sax man la gëna wolu sen que yenen marques yu yi mais par contre il y en a des des marques qui xam tane l'eau nañ tay ci eau purifiée yo xam ont elles suivent les normes mais y en a yoo xam ne kenn xamul bu njëkk ba Pierre Val moo amoon ak li nga xamante ne moom mooy Evian mhm. moom lañ doon def Pierre Val Evian moom lañ doon jaay buti gi et ça coûtait cher ba tey ça coûte cher ah, doo dem ci benn rarement ngay dem ci kër boo xam ne da ngay gis ku jël ay Pierre Val rangé ko ci këram comme léegi ni ngay gisee yeneen yi nga xamante ne nii moo mujjee génn ay Casamance ak yooyu yëpp que bon ndox yi nu leen neex lañ koy jaayee ñun daal yàlla rek moo ñu en tout cas daal ñun daal kontaan nañu si seen sponsor tamit muy Bridel maanaam euh, xarit bi moom ñu bëre jël nañu Bridel yokk ko si seen cere bi moom euh, te c'était très bon et puis man je voudrais juste attirer une chose hein. attention si benn affaire c'est-à-dire que dañu romb yenn saay si medd bi ça n'a rien à voir avec le thème ah mais c'est toujours dans le consommation la dans la consommation dañu romb mayonnaise beurre cacao meew ñu exposé ko au soleil de huit heures jusqu'à dix-neuf heures mooy ñuy jaay si medd bi bu leen ko jënd wóorul ah. day non mais dafay dafay dafay tourner au fait. Oh, day day day day euh, day naka lañ koy waxee xam nga tay dafa melni euh, tay ngay conserver aliment sa bir frigo ba pare bëgg xam nga ne aliment bi ni c'est un aliment qui est très sensible. Mhm. nga bëgg yow conserver ko sa frigo chaque minute nga fay chaque minute nga taal chaque minute nga fay chaque minute nga taal. mais lek bobu tay bu amone euh, date de péremption dans deux ans sax. Mhm. day gaaw a yàqu day tourner. parce que tout condition de conservation yi nga xam ne moom la ñu informé. Ah ci produit bi pour que nga mun a am température boobu amu ko. non et à la longue le, produit va se, va se détériorer, Devient un poison.